mooy li ko dalay càmm gën si kam mbaaw jëm sam-sam ba dem Mboro sama fan si dëkk yëpp maa ngi di woo di woo waa Joal waa Joal waa Kaolack maa ngi woo ñëpp bàyyiwuma kenn kon Touba maa woo ñëpp di wax ne bis bi dafa nekk bis boo xamante ne yow kafe yow moom foxo yow moom ku ma ko nar a yàqal ma teg kafuma ci ah? ci dëgëm ndam moo ma ñor di ñaan yàlla nag bu ma na ma nag lu ne kii moom ma fuuf te combat bi da koo jaral lu sa waaye ngi yéegal niveau bi de nee na yow miy mag lu mu la jaral na ko lu ko papa combat bi lu mu la waa di profité rek waa bàyyi profité bi di woo Médina Fass Colobane Gueule Tapée HLM grand Yves Diaw bu Fass maa ngi lay woo ci combat bu baax grand Mbaye Diop président Fass Benno waa di leen wax ne milieu sportif mag buy tëdd heure di lekk heure di yeewu heure tuxoo naanoo demoo fenn yaakaar naa di nga am fraîcheur de ah dégg nga de mag buy teel a tëdd di lekk lu baax demoo dikkoo tuxoo boo fekkoon ndaw ci géew dina xam ne ah du yomb waaw xale boo xamante ne nag yow li nga bëgg da xam fu mu nekk ñëpp ne la mënoo fa dem ngay raam di toog di toog di yolli yolli di def di jéem muy métti xam-xam bi taxaw ngay xuus di jaar di déglu heure nekk bàyyi faat gëmuma succès gëmuma xaalis gëmuma dara kon donc lamb ji moom est-ce na ko ñàkk. si ka waxal ak papa <laughs> mais lamb ji garaaw na de. foofu dama bëgg nga xam ne man foofu mais nee na foowul. kafuma kaful. affaire yu solo yooyu ngeen ay sito luy génne day xaar damay lam wallaahi njom isi daa njom isi daa njom garanum no haa nana séeréer nana am te ɗefin tous o he ɗum ka len jaranna jarannam ka anonama debi ɗum fos onege gomini wayi hono jaranama atma séréer laga xak yow bude jogina wema ama bëgg moo bu demee séréer ñi nga xamante ne gëmuñu seen bopp cent pour cent ñu nekk li ma ko wax lan la nee na wax séréer la samay choix waaw man man doomu Jogwaar sama yaay Jogwaar la dëkk Jogwaar Jogwaar la man su ma bëree si côté yaay damaa war a bëree su ma bëree si côté papa damaa war a bëree mais yàlla dafa def man Ndakaaru laa yaroo fi laa màggee moo tax bi bari sax ci laa naan si ma bëri mais yàlla dafa waroon a def yàlla dafa waroon a def Ndiaye yëkkati ne ko am benn baat nee na ma a amul sens yu bëree ba pare comme xale yi ñu bëree man mbër baaxu ma bëree mais kii sama diggante maa moom bu ma taxawee di wax ne mën naa bëree su wetam wala mënuma bëree Modou Lo www site papa sow point com ku ko bëgg a seetaan loolu ngay tàppee ci pay-per-view bi. maa ngi woo sama xarit Amadou Sall. suba Fallou Ndiaye moom mooy organiser arène nationale. serpent noir caatu yaram. ok. dama bëgg nga xool Amadou Sall sama xarit maa ngi koy woo ñëw jàppale ma si combat bi dama fay sama borom. ay ca nga woote parce que yaakaar naa ne sa mbokku pël yaa ngi nii waa Fulaadu comme séeréer bi mi ngi làkk séeréer xam naa ñoom après ñu def yëfi pël ay ca leen tuuti yóbbu ñu Fulaadu c'est le Fulaadu c'est